ne me parle surtout pas de Clara. Ne me parle pas de mariage. J'ai déjà pris ma décision. C'est clair Voilà. Oasis xanaa danga nga fàtte ni borom bureau bi ak borom entreprise bi man Jasmine maa leen moom. àdduna nag moo demee noonu. moo tax ñu naan soo amul wéeruwaay rek neex a bambax te jigéen matu àll ku romb for waaye li ngay for na la nay fekk mu lew la. tey si café gi laa boole ko nag di ma këpp ay café di ma këpp ay ndox mu tàng su ma waxee moom mu yóoxu ma barki dem damaa lox hey que la dernière fois kii li mu la laaj dégg ko jox dégg nga li ma la wax xalaa yem nag <laughs> benn du dëgg yëpp la wax <laughs> <laughs>